حمدا لمنزل لنا ولاي ومنزل الشفاء والدواء نيجي سانت سيري توبا بوير سما مساج نك موم مساج موي مساج ليغا خامني موم لو خليفه العام سيرين منتخا واخ تي تي تي تي ماغال man ab taalu bi rek la euh, euh, li sëriñ Mountakha wax ci lay tënku aw ma message bu may joxe xanaa rek di ndokkeel bokki murit yëpp ak bokki cantaakon ni ci ci ci ci weeru safar bi ci màggal gi di ñaan sëriñ Touba defal ñu tawféex te ñu fekkee ko bu déwénee te déwén ndaxal nu ren fuuf euh, cant gi gën a rëy nag bokk na ci ren màggalu Touba ñu amale ko ci amalin woo xam ne wóor nañu ni sëriñ tubaa ci teg loxo mooy lu ñu daan man daaw man nañu ren lu ko mbooloo mi gën naa yokku xéwal yi gën naa yokku moom daal wet goo xool wet goo càmbar rek di nga ci gis ay yokkute yu fës moo tax ñu am ci mbégte lool sunu xol sedd ñuy ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi te wér di ñaanal sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy sunu sëriñ nga xam ni bu dul woon moom man naa am du mu ëgsi fii te ñaanam wóor na lu mu ngi ci ñun koy ñaanal mu yàgg fi tëwee. waaw waaw moom day ñu ngi sant bu baax ñu ngi jéem a barkeelu rek ca noonee mu daan defee ñoom ñu ngi ci liggéey bi dégg ko subaak léegi ñu ngi jàng fasaay ñu ngi jàng alxuraan. yandoo fi li nga xam ne moom lañ fi digle ak cant di bernde euh, euh, rey nañu sunuy nag euh, bernde yi bare na teyaat yaatu moom daal ñu ngi santaat bu baax tey ñaan ñëpp fi ko déwén bu soobee yàlla jërëjëf hamdan liman silidana walai wa munzili sifai wa dawai